kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waa daaray safinatul amaan noo ngi leen di nuyu di leen ziar te di leen namm lool wax dëgg ndax yàlla dogal na xaw nañoo gëj daayira lool waaye nag dañu fee newutam ne ci yitte rek waaye jamono ju ne nag ñu ngi topp suñ kem kàttan di nuyu ak a ziar yëkkati nuyoo bi di ko teg ci loxol jëwriñ Serigne Ibrahima Jenn mi nga xam ne moo jiite cellule dakaar bi ak jëwriñ yi topp ci moom buñ tuddee sëñ Mor Diouf sëriñ Omar Ndiaye mi mu àggal leen ko ci ci biir ñëpp di nuyu mbooleem waa kuréel bi di leen sant di rafetlu bu baax njàng mi niñ ko baaxoo defe am na solo lool wax dëgg yàlla mel na melokaan woo xam ne mën nañ koo jàng fu ne mën koo jàng ci kanam ku ne jàng xasida moom li ci ëpp solo mooy jànge ko jàngeen woo xam ne bu sëriñ bi noonu jamet doo ci soppi dara loolu nag mooy jàng ngir yàlla te xam na ne noonu ngeen koy jànge kon yal na ngeen ci am ngëneelal sëriñ bi di beral nuyoo sunu woy jur wee soxna yaay wali ndiir di ko ñaanal gudd fan ak wér xam naa doon na jëmm joo xam ne nii day eh, waa làmbaay rawatina ndaw ñii rawatin ñi yëngu ci xasida yi buñ xaman nde xam nañ sax waaye dëgg dëgg dëgg buñ xaman aw doxinam ak yéeneem dinañ ko gën di jokka ñaanal bu baax a baax ndax yëngoom yee ak dalam yépp lislaam la ak luy taxawal lislaam ak liggéeyal sëriñ bi ak liggéeyal alxuraanul karim kon ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér di ko xamal ne ko bokk na ci ñi nuy soññ wax dëgg yàlla ñi nga xam ne nii saa yu déggee kàddoom rek dinañu soññ ginnaaw bu loolu weesoo xam naa waxtu wi xaw naa xat sax waaye maa ngi doon xalaat waxtaan ci tomb bu am solo lu jëm ci wàllu ñaan waaye nag buñ ko jaaree ci xasidaay sëriñ Touba yi waaye Serigne moor dafa wax lu am solo loo xam ne xam naa réunion yi ma fekkiwut moo tax nde waxan nañ ko sax laata ñuy ziyaara muy kër Serigne Touba googu mu doon lu am solo loo xam ne ni jot na sëkk ñu maam xam ab dayoom ak soloom ci daayira bi ci mbooloo mi ndax damay fàttaliku jenn jamono daayira bi nekk daaru muy Taysiirul Asiir te Baye Sall mi jiitu ko léegi bi ko magam di jiite fekk ñun jol toll na jamono yi sax ñoo ko jiite woon ndax daayira bi dañ ko daa def ca dëkk ba ku dem bay ñëw Dakar bàyyil ko fa say rak ñun ñii bi demee ba bàyyil leen ko fa ñu bàyyil ko fa magam moom mii ñu di ko taxawalaat woon ma doon ma laaj xelaat ci daayira bi ma ne leen man de fekk dañ ñoon ñetti xalaat yi daal lañ bëgg nga wax na ci lan mooy sa xelaat benn ñu yóbbu ko daayira muy liñ fi jot a dajale walla ñu jënd ci ay matériel ay matériel walla ñu jëf ci ay déguisement ma ne leen man de li ma leen tànnaloo mooy ngeen wut ci matériel yi boo xam ne nii daay daayira bépp a ko bokk ndax jëmmi matériel boo xam ne mbooloo da koo bokk day lëkkale mbooloo di leen euh, téye nga xam ne tey jii buñ bëgg a dem sax buñ bëgg a tasoo sax la ñu bokk moo leen di téye kon kër sëñ Tuubaa gii nga xam ne nii mooy lii nga xam ne mooy naal bi ci suñ kanam ñu gën cee góorgóorlu bu baax ndax mbir la moo xam ne day lëkkale mboolem waa Lambaay ñépp muy askan wa ñuy yëngu ci xasida yi ñëpp ndax ker su demee ba taxaw ñu ne lii de mooy kër daayira fédération bi kenn ku ne danga ci am sa wàll te kenn du bëgg dem bàyyi fa sa wàll kon bokk na ci lii gën a lëkkale mbooloo mi gën leen a dajale doon loo xam ne tamit ab joxoñ lay doon boo xam ne toujours rek ku ku fa romb xam ne lii day jëmmal daayira bi kon ñu gën cee góor góorlu bu baax a baax rawatina sas yooyu nga xam ne nag yàlla dogal na diisul dara xam naa liñ bëgganoo waxtaane tey muy ñaan ni nga xam ne ni la amee solo ak ni na ko sëriñ bi jàpp ndale ci xësidaam yi nga xam ne ñaan boo demee ci téere boroom xam-xam yi dañ lay wax soloom sëriñ bi mu ngi wax ci masaalikul jinaan ne ñaan mooy muxul ibaada muy yuquk jaamu yàlla nga xam ne yuq mooy ndawal gi gën a am solo gën a noobale ci niñ ko mën a waxee ci ndawal euh, bokk na ci ni ko mag ñi xamee woon ñu jëkk ña rawatina buur yi fi daan faloo nga xam ne ñoom dañoo toppan seen bakkan dañ daan rendilu ay gàtt yu bari wala ay nag yu bari te fekk maam ñoom yuq ga rek lan soxla yuq ga moom la ñuy jël daal di koy e, mooñe seen cere di ko jëfandikoo lu tax dafa doon loo xam ne nii mooy li gën a riis ci ndawal sëriñ bi ne ñaan ni mu demee ci jaamu yàlla yi mi ngi mel ni ak yuq ni mu demee ci ndawal ñaan nag doon lu jafe ndax dafa am ay teggin teggin yoo xam ne nii di ko def sàmmanteeg moom yombut kon nag bu la ko suñu borom suñu borom bu suñu borom dimbalee ba boole noo ki nga xam ne mboolem teggin yi ci aju man na ko xam na ko muy sëriñ bi bindal nu xasida yi xasida yi lépp di ñaan kooku sant la kon ñaan dafa doon loo xam ne nii euh, lu am solo la